mënuñu comprendre ñu nekk ci réew créer suñu liggéey maanaam nekk ci secteur privé bi ñuy jàng métier kenn deful dara ci suñu jàng métier bi ñu jógee ba jàng métier investir suñu place kenn defu ci dara du état du kenn mais ñu investir ci place bi di joxe suñuy taxi fay lépp li nga xam ne sénégalais yi war nañ ko def mais amuñu sécurité bu doy depuis boobu ba léegi ñu ci ñu koy dund nag depuis boobu ba léegi maa ngi koy wax léegi ñun bi ñu juddoo ba léegi ñu gis tëgg ñu ne tëgg bi sàcc nañ ko dajj nañ place ñu ne gisaat na ci benn gram musul am. Euh, li jiitu mooy Thierno Jong mi ngi fii ci ginnaaw dajj nañ place am yóbbu yóbbu koofram yóbbu ko yàq 12 millions euh, bi ci topp mooy moo du Gueye mi ngi fële ci ginnaaw moom it place am ci buntu ginnaaw bi lañ dajj yóbbu yóbbu yóbbu lu bari ci moom. beneen bi ci nga xam ne nag moom moo ëpp doole mooy Tamsir Thiam nga xam ne bokk na ci tëgg yi ëpp doole fii ci Touba dañu dugg ci place am jël nañ fa daanaka 30 euh, millions presque parce que ñu ngi jël 11 kilos door 11 kilos d'or li ci ëpp 21 la fi ne 21 mi ngi ci euh, mi ngi ci 20 vingt 28 mille wala 26 mille gramme bu nekk léegi ñu jël si 11 kilo loolu bi mujj mooy baa paakaare mi nga xamante ne moom moo indi coow li parce que moom dañ ko fa fekk bëccëg 7 heures muy ubbi ñu jël pistolet teg ci bopp bi.

Euh, mu wax ko ni ko am ñuy dajje place xaanu cuuraay ñoo ñëwoo police ñom nee nan yi tollu nañ ci 12 personnes dañu véhicule woon auto bu wex mm, L200 bon dégâts yi euh, amul dégâts matériel sauf que dajje nañ porte bi sauf dégâts bobu mais bi duggé ci biir gis nañ ni c'était pas un peu grave ci wat côté bagage ñu benn bagage imprimante bi yak nañ ko jël nañ fa xaalis 2 millions ak euh, ay pièces valeur 80000 francs ay quatre heures du matin lañ ko yëg bi ñuy ñëwee fekk nañ fa police euh, sur le lieu mais ñoom bi ñu ñëwee ay matériel lourd la ñor dañoo dagg cadenas yi nga xamante ni ñoo féete ci mbedd mi benn euh, ñetti gardien yi ñaari gardien yi ñu maîtriser leen benn gardien moom moo rëccoon kooku nag moom moo woote diggante sama magasin ak euh, magasin xarum cuuraay onze minutes daal lañ fa def léegi bi ñu dajee magasin bi dañoo dugg ci biir bi ñu duggee ci biir la ñu wër foofu këlfe bagages yi foofu gisuñu dara après ñu dem ci kees gi fekkan na euh, benn xaalis bu fa nekkoon ay 3 millions ñu dajj kees gi jël ko dem seen yoon. ab 4-4 double cabine lañ yor daal te ay 12 personnes lañu woon. solution pour ñun bari na li jiitu mooy ñu fexe veiller ci sécurité bi veiller ci sécurité bi nekkul ñu ubbi ay caserne ñoom ñu tëdd ci caserne bi di nelaw ak def seeni mbir. mais nañu fekk nit ñi fi ñu nekk ñu bokk ak ñoom lan lan nan la ñu war a fexe parce que ñun ñoo gën a xam lan mooy lan mooy régler suñu problème ñun visiteurs yi jàpp nañu ne li jiitu mooy ñu fexe ba euh, su guddee sécurité bi nit ñi ñu xam ñan ñooy ñan léegi rek sama xarit bi mi ngi fi ñu ngi ci 200 kër yoo xaw ma xaw ma 300 kër yoo xam ne ay làmp ñu ngi tàkk ci biir ñu luy leen te kenn xamul kan moo nekk ci biir fii ci Touba 200 recensé nañ leen ñoom seen association bu ñu nekk sécurité nag nekkul ay nelaw nekkul xaar ba problème am nga doog a def bokk na ci ñun tëgg yi li gën a ji li jiitu moom mooy ñu fexe ba or bi nga xam ne ñu ngi ñu koy ñu ñu koy jaay ñu ngi koy jaay ñu fexe ko ba di ko contrôler ba buy dugg ci dëkk bi ñu xam ko buy génn ñu xam ko. léegi dañuy ñëw rek di jël si parce que information yi gars yi wax naa leen ko nee naa leen commerçant yi am na ci ñoo xamante ne bii ñu ngi xëyandoo. ak commerçant yi ak di wàccandoo ak commerçant yi te ci dëkk bi la ñuy nekk dañuy informé gars rek léegi dañuy ñëw di jël si ñu ay bandi lañu insécurité bi fi ne nii daal euh, c' est un peu partout daal. naka jekk sax ñu ngi daan jël suñu matuwaay waaye ñoom itam saa yoo jëlee seen matuwaay bu ëllëgee dañuy contre carré loola bu ko defee dañuy seet leen loo xamante ne bi lu bees la loo xamutoon xaw la caa bu ëllëgee yow itam nga jëlaat euh, kii moo tax itam ñu ngi lancé appel euh, autorité yi nga xamante bi ñooy nekk ci dëkk bi. ci région bi ak kilifa yi diine yi daal euh, ñu jàppale ñu ci lii daal. waaw nañ plainte tey police euh, ñu ngi ci enquête bi daal fi ne ni pour l'instant foofu lañ toll. bon enquête bi euh, ñun li nu war déjà moom laa expliqué bi nu xëyee ñun même si guddi gi sax 5 heures du matin fekk noonu police ñu def déclaration.

si ñaari Palestine cambriolé. nee na 12 personnes ñëpp yor arme 12 personnes ñëpp yor arme. bon pour l'instant amul image parce que ñun aussi euh, incendie yi nga xam fay am ci marché yi dafa taxone euh centre bi ñëpp dañuy couper seen compteur parce que tamit à chaque fois yéen ngi doon ay incendie ñu jàpp ni bu couper compteur yi lool moo tax peut-être amna na image yo xamni ni ko mais heureusement du du ñëpp ay tëj seen caméra amna caméra yo xamni ñom amna am na ni war na noo mën am dara ci kii We'll be right back.